jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay tey mbokk yi dimanche le 26 décembre ñoo ngi fii arène nationale ki nga xamante ni mooy Djibson production moo ñu fi woo combat bi dox ci diggante Mathieu écurie Waalo Saba écurie Jàmbaar mbokk yi tey drapeau Pape Modou tey du yomb waa 2S ñi nga xamante ni dañuy bëgg làmb ak mbokku lamb tey ñoo ngi fi mbokk yi di di di xaar combat mag nga xamante ni dox ci diggante Saba ak Caatu Waalo Saba mbokk yi moo dugg si léegi ma ànd ak Adama ambiance lamb lépp dina fi am lu fi am rek leen ko dëgtal ci Wassare Lamb Adama ñu dem. am di ko ndigal xale yaa ngi ci digg géew bi jàppante nañu. am di ko ndigal ndigal Senghor yaa ngay wadd am di ko ndigal fàq na ko da lay daan am di ko loo doon def da ko doon fàq waaye la ma ci jaaxal gisuma fi tapi daan na ko jël bu ma xale ba muy def xoolal ma xale ba la muy def oh noonu. mais Mbeu ziar naa la. maa ngi lay ziar. sant Baye Karim sama yaay. nga bëree ak ah. noo bëreeg moom. kii dama bëreeg rek. xam naa ne ñoo tolloo mais bilaay maa ko bu doole. yaa ko bu doole. fuuf yow ñëw nga seen igiri. ku kontaan ak caat booy Dakar. yankaaw si tawu Saalum. ay jeex jaamu kii xajuma si moom barki alxuraan. bilaay dama ko waxaan ne ko seen igiri ñett laa fa daan ci genn tàkkusaan mbaban Medina. ñetti nit nga daan seen igiri. ci genn tàkkusaan mbaban Medina. yoola yoola laa fa mujjee daan. ma ne ko moo la gën a. moom moo ko ñeent. ma ne ko moo la gën a tëb mu bañ lool. bilaay maa ko bu doole. ku ne sama kanam ñëpp a ngi fi dama leen koo ñaan ngir yàlla baaba jaxal nan ma ko jox. ñëpp ngaa dugg ci baaba jaxal. baaba jaxal ñi ma doon jël jeex jàmm nan ma ko jox ma supp ko barki alxuraan bu ma ko joxee ma. baaba jaxal daa walaay da koo ragal. mais jeex nuyu naa la. Ousseyn bi gën la. ci loone sant alhamdulilah kay. depuis boobu la. waaw gisoo ñun ñu ngi toog suñu roq di liggéey. saa yu combat ñooy daan jël bëre incha allah bu neexee yàlla. man pare naa pour ñëpp. mbër bu ma jox mu sama morom may bëreeg moom xale laa rek nekk ci làmb defaguma dara dama fas yéene def ci dara toog bi may toog amul sens dama war a bëreeg samay morom jàll dem ci li ci kanam. est-ce que xam nga dama leen woo jàmmaarloo mercredi yaag moom. waaw pare naa moo des moo des yàlla baax. baax na après ñu dégg. Adja Ousseyn ñoo far yow. Omar Ama Omar Ndiago la ñu jàkkaarloo Ama moo ñëwoon ginnaaw ngeen moo ngeen bul weex li Ama Ndiago moo bi takk yu xonk yi daw na jël ko eh Ama jël lu muy def nii. <laughs> laay xale yaa ngi noonu. Ama Ama Ndiago. Ama Ndiago na ko doole daan. Ama Ndiago daan na Ama. Ama waaye da koo takk rek añ ko mu ko ca xabal ba mu ko mu jaaxaan Omar Ndiago daan na waaye boo dañoo sonn suñu làmb ji waa Seras waa Sire Sonatel waa Malika. bilaay walaay booy ñooy sama lépp gisoo booy jàmm gën a nante fi. parce que Serigne Touba mag yaa yóbbu. mais lan lan xale yi. waaw dañoo ma bëgg seen bopp rek xale nga jox lu mu moom nga jox lu mu moom. parce que ñu topp la. boo ko daanee. ñuy xoolal xoolal 1 million ma ketal 1 million. lañ la tegal xoolal lañ jox ma barki Mouhamed. bu yombul. barki alxuraanu karim. arbitre baa ngi waxtaan wax ak ñoom ci dictionnaire ak Moussa Guy gi dictionnaire arbitre ba laaj na dictionnaire dictionnaire daw na génn ma ngay annière waa lii lu mu doon dictionnaire daw na ba génn géew bi dellusiwaat da nga jël avertissement dictionnaire am na deux avertissement Moussa Gouye gi arbitre bi sifflé waat na dictionnaire moo ñëwoon ginnaaw Moussa Gouye Gui lañ ñu jàkkaar lool dictionnaire mbokk yi booy xool moo xaw su tuuti kii di Moussa Gouye Gui Dictionnaire cokaas na léegi Dictionnaire Moussa Gouy Gui eh Moussa Gouy Gui daw na jël Dictionnaire jël na Dictionnaire lu mu koy def da koo a zongalee da laa sut wala da laa doole Moussa Gouy Gui defal ndànk Moussa Gouy Gui defal ndànk Dictionnaire ngay bëreel eh jàpp soo ne jàpp na ca gaño ko da koy wala lu mu koy def Moussa Gouy Gui ndànk Moussa Gouy Gui ngay bëre da koy wala nu mu koy def da daan oh Moussa Gueye gee ngay bëree Moussa gi di Dictionnaire est-ce que dégg daa waaw waaw Moussa Gueye gi daan na Dictionnaire Moussa gi bëree nga Moussa gi daan na Dictionnaire oh Moussa gi Moussa gi jël ba na. arbitre baa ngi laaj laaj na leen ba xam pare nañu Pape Gouye Gui Karbala Pape Gouye Gui door na léegi Karbala Pape Gouye Gui daw na jël Karbala jàppante nañu Pape Gouye eh, doomu jàmm bi ngay door eh Karbala Pape Gouye Gui looy def nii Pape Gouye Gui Pape Gouy Gui Karbala Pape Gouy Gui Karbala moo ngi ko caxabal da koy yee daan ku daanu Pape Gouy Gui nu mu def nii Pape Gouy daanu na moo roof caxabal ma waaye daanu na Karbala daan na Pape Gouy Gui wala Pape Gouy Gui daan na boppam caxabal ba ñorul Pape Gouy Gui wala caxabal ba caxabal ba ñorul Pape Gouy Gui Karbala ngay daw. Karbala wa ngay daw AVC bi moo xaw a su tudd kii di naxat arbitre bi sifflé na naxat tibb na suuf dox ci kaw eh, naxat naxat Boy Sébi Boy Sébi doorante eh, na Boy Sébi ràcc na ba suuf booy xool ki nga xamante ni mooy Boy Sébi moo xaw a su tuuti est-ce que ëppul naxat jàppante na ñoom ñaar li ci kanam bët naxat Boy Sébi moo ko tegal 16 euh, Boy Sébi jéggi na ko wala boog naxat jéggi na tegal 16 ba Boy Sébi naxat da ko tegalaat 16 dana ca toog tëdd na ca oh doole doole Boy Sébi daan na naxat da ko ëpp doole da koo xëcc tàkk tegal ko 16 mu jéggi mu tegalaat ko 16 mu jéggi. mu tegaat ko sees mu tëdd ca toogu ca da caa tëdd Boy daan na naxat mbër yaa ngi ci diggi géew bi Mathia noppi na Saba noppi na Mathia nga yàggaayu Saba maa ngi taxaw ak Baye Djili Baye Djili naa la. maa ngi lay fay Ousseyn di nuyu mbokk internet yëpp maa ngi leen di bégee sama gaay yi. démb de daa mel ni na ko doon feetu. ah démb de feetu nañ feetu boo xam ne.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 daw di jëli tànkam bu defee benn rotation mën ngaa def quatre appui en tout lu mën a xew mooy Saba nii muy bëree mooy def lecture ferme gardam xaar macca